rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tatagal ci seen émission bii di minbar ñu koy defee fii ci masjidul qalam ci walfajri euh, rek nii lañ ko fas yéene jàppaloo nag euh, ci biir koor gi li ko dalee ci ajjuma ji euh, ba samedi ba dimanche minbar bi nag tey dañ ko xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi dinañ leen indi lu ñu tuddee mbindum koor buñ ca sottalee itam dinañ dinañ leen indil yóbbalu koor yóbbalu koor tey bi nag ki koy euh, def ki ñu ko séqal ak moom mooy professeur Tahirou Doucouré professeur du Doucouré nekk ku ràññeeku ci biir Sénégal koo xam ne marqué na jamono ci wàllu social wàllu religion waaye itam wàllu politique moom la ñuy dalal ci euh, ñaareelu xaaju minbar bu ko defee rek ñu soobook yéen ci xaaj bu njëkk bi di mbindum koor dafa am yu am solo yoo xam ne aji woor bi war na ko xam ndax bu ko xamulee mën na am mu tàbb ci yoo xam ne dafay yàq kooram wala mu xajamal ko wala mu wàññi yool ba yooyu incha allah lañ leen fas yéene tànnal benn par benn di leen ko wax ci lu gàtt loo xam ne yóbbal lay doon euh, mbindum kooru tey bi dañuy waxtaane charte yi nga xam ne mooy tax koor wér buñ ca sottalee ñu waxtaan charte yi nga xam ne mooy tax koor war buñ ca sottalee itam ñu indi faratay koor yi nga xam ne bu amulee koor ga du wér kon ñu tàmbalee ci point bu njëkk bi mooy yi nga xam ne bu dajaloowul ci nit ki bu wooree koor ga du wér muy sartab wéru koor sartab wéru koor ba ca jëkk mooy lislaam ku dul jullit bu wooree weeru koor woor woor wa du mën a wér ndax li ko waral mooy ñàkk dugg ci lislaam ñaareelu sart bi pour koor wér mooy al aqlu mooy xel nit ki il mu am xel ku amul xel boo wooree koor ga du wér ñetteel ba mooy koor ga itam dañ ci ay ngànte yoo xam ne day dal jigéen mu mel ne deretu gasin gu daggul walla deretu mbaax yooyu bu amee itam boo wooree koor ga du wér am na yeneen sart yoo xam ne sartug war la maanaam balaa la koor gi di war fokk yi dajaloo ci yow ba ca jëkk mooy nga bañ a am ngàntaloo xam ne mooy dox sa diggante koor bi bokk na ci ngànt yooyu feebar bu ñu waxee feebar nag mooy feebar boo xam ne docteur bi nee nag kenn mënu ko boolee koor waaye am na feebar yoo xam ne mënees na ko boole koor jotewul ak koor dara peut-être mën nga wax ne sama loxo mooy metti bu docteur bi waxee ne loolu terewu laa woor bu boobaa mën nga boole feebar boobu ku we woor waaye am na mu feebar yoo xam ne docteur bi bu waxee ne mënoo ko booleek woor bu boobaa euh, doo mën a doo doo koor ga du nekk lu war ci yow naka loolu itam tukki tukki boo xam ne du tukki mooy yàlla boo ko tukkee koor dootul warati ci yow doon tele boo wooree itam koor ga dina wér naka noonu itam jigéen ju ëmb te docteur bi wax ne bu ko boolee koor dina lor wala mu lor li mu ëmb bu boobaa itam koor ga dootul nekk lu war ci moom jigéen bu toll ci nàmpal itam naka noonu bu docteur bi waxee ne bu booleeg nàmpal bi dina lor wala mu lor li muy nàmpal bu boobaa loolu koor ga dootul nekk di war ci moom naka itam ki nga xam ne toggees na ko jëf maanaam mu nekk mu kallaf kooku itam charte euh, la ci charte waru koor waaye bu fekkente ni àggul ci as boobu wala mu nekk koo xam ne euh, nekkul ku ñu togg jëf ndax ñàkkum xel walla ñàkk at yu ko yu tax mu ñu togg ko jëf bu boobaa itam bu euh, koor ga dootul nekk loo xam ne dafa nekk lu war ci moom yooyu mooy charte yi nga xam ne charte waru koor la ñetteelu tomb bi mooy faratay koor farata nag bu ñu ko waxee mooy loo xam ne bu amulee la ngay def du wér bu am bu wéram mu ngi aju rek ci mu am ba ca jëkk ci faratay koor mooy yéene jaamu yàlla yépp ci yéene la aju moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xaalis ne innama al amalu binniyat li kulli imriin li kulli imriin jëf yépp ci yéen yéene la aju julli gu amulee yéene julli ga du baax koor bu amulee yéene koor ga du baax ak màkk bu amulee yéene aj ga du baax ak lu mënti doon bu amuleek yéene rek ci jaamu yàlla yi bu boobaa du baax tey nag ñu ngi ci koor koor il faut ñu yéeneel ko yéene kooruk farata nag foog guddi nga koy mën a def bu dee kooruk farata maanaam bu fekkente ne nee nañu weer wi feeñ na nga xam ne kon timis jot na bu boobaa mën nga wax ne fas naa yéene woor weeru koor gi yëpp bu boobaa benn yéene boobu mën na la yóbbuwaale li des ci koor gi yëpp waaye nag bu fekkente ne danga nga dog ci diggante bi bu boobaa guddi gu nekk mën nga koo jagleel yéene boppam fas na yéene war suba bu ëllëgee nga defaat noonu muy dem loolu kon yéene koor koor farata guddi ga rek lay mën a doon waaye nag bu fekkente ne kooruk naafila la koor goo xam ne kooruk gàtta nga koor goo xam ne kooruk coobarewu bu boobaa dañ ca sartaal mu nekk guddi ndax boo xëyoon lekkuloo nga dem ba 10 heures nga ne ah tey de euh, ci suba si ba léegi de fajar ba léegi lekkuma dama waroon woor benn yoon bu boobaa yoon may na la nga woor ndax kooruk sunna la bu boobaa da ngay jàpp li des ci bés bi rek yéene ba bëccëg la tàbbi waaye bu boobaa koor ga dafay baax ndax kooruk naafila la ñaareelu faratay koor mooy al imsaak mooy jàpp walis lépp loo xam ne dafa yàq koor yàq ko lekk bokk na ci naan bokk na ci fexe ba daal am benn matière bu jaaree fu mu mënti jaaree ba àgg ci sa mbaax loolu nga bañ koo def loolu ci euh, faratee la bokk ak euh, bañ a sëy yooyu yëpp yooyu mooy loolu mooy al imsaak mooy jàpp ci wólis lépp loo xam ne dafa yàq koor kon yii doon na yoo xam ne yu am solo la muy sartub wérub koor ak sartub warub koor ak faratay koor yooyu nag lañ leen indiloon tey ci xaaj bu njëkk bi ci li nga xam ne mooy euh, mooy euh, mooy euh, mbindum koor bi ñu leen indil tey nii lañ ko fas yéene jàppee nag ñu leen di indil yu gàtt yoo xam ne gàtt na waaye am na solo ci koo xam ne dafa nekk ci di woor ngir woor a mën a nekk lu wér waaye mën a nekk lu mët kon dañuy def dara rek lu mooy ñu ñëw ci ñaareelu xaaj bi ñaareelu xaaj bi nag ni ma leen ko waxee ñu ngi ci dalal professeur ko Doucouré ci yóbbalu koor mu war ñu waxtaanee nag tomb bu am solo euh, muy euh, weeru koor ni mu nekkee weeru victoire ñu bari dañu yaakaar ne boo wooree da nga war a tayal boo wooree da nga war a euh, yonjox da nga war a wàññi sa liggéey te fekk ndekete yoo koor maanaam weeru koor weeru victoire la loolu moo ñëw ci ñaareelu xaaj bi ak professeur Tahirou Doucouré incha allah bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne tàmbali nañ ko ci bismillahi rahmani rahim ñu ñaan yàlla ñu àggale ko ci ak alhamdulilahi rabbil alamin lépp luñ ci digg ci yiw yàlla nañ ko yàlla defal fula leen ko li mu gën a yaatoo ci biir loolu rek ak ci biir programme mu koor gi ñu am mbégte tey di leen présenter émission bii di yóbbalu koor émission bu yóbbalu koor bi tey nag ñu dalal ci borom xam-xam gëstukat koo xam ne marqué na jamonoom ci wàllu diine ak wàllu doxalin ci biir Sénégal muy Serigne Cheikh du Doucouré nekk koo xam ne kenn du ko présenté waa Sénégal ndax li mu fi jot jot bàyyi ci ay jaar-jaar ak ci ay doxalin ci biir réew mi loo xam ne yépp pour servir askan wi la. ñu toog ak moom tey nag ci yóbbalu koor mu war ñu waxtaanee tomb bu am solo muy koor li mu nekkee euh, victoire koor ak li ko feese ci ay victoire ci biir histoire u ñu bari dañu yaakaar ne koor dafay weer woo xam ne weeru tayal la wala weeru bañ a liggéey la ndekete yoo mën nañu wax ne koor bu ñu seetee ci histoire dañuy fekk mu nekk weer woo xam ne weeru victoire la ci biir l'islam kon tomb boobu tey incha allah la ñu fas yéene ànd ak kii di professeur Tahir du koy ginnaaw bi ñu ko nuyoo euh, ndokkeel ko ci koor gi rek ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokk bu ko defee mu tàmbali ñu ak sujet bu am solo boobu professeur. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi alladi jaala هذا الشهر المبارك نتيجة إيجابية تولدت من مقدمات إلهية تاريخية إن ربنا سبحانه وتعالى في مشيئته لما أراد أن يبين للناس maa li abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam axada min almasdar alawali wa amara ibadahu an yaqulu lahu iyaka nabudu هذه الكلمة المقدسة ظاهرها معبود واحد هو الله وباطنها معبود مع عبده الله محمد sama doom weeri koor weeru ndam la depuis Adama depuis lawil mahfuz ndax yàlla keroog bi mu ne malaaka yi li Adama boobu am na lu ko jiitu téere yi mu bindal yonent yëpp mu ngi ci biir alxuraan secret bi ci téere yi alxuraan yëpp mu ngi ci fàttali kitaab bi fàttali benn baat bi nga xam ne mooy na na'budu moo ci nekk mu am zahir yow rek la ñuy topp mu am baatin yaag sa jaam bi boo ne iyyaaka yàlla rek la benn singulier boo demee zahir bi mooy loolu boo demee ci baatin bi mu nekk cent cinquante huit araf yi boo ko limee soixante six di allahu quatre vingt douze di muhammad nga boole ko mu nekk iyyaaka na'budu fii lay aadama amee yàlla aadama yàlla iyyaaka na'budu génne benn ci yàlla mu ñëw ci baatin mu génne ñaar bi aadama ñëwee yàlla ne malaaka usjudu li aadama may na ko benn may na ko benn zahir boo ne aadamu beneen nit la boo limee zahir mu nekk quarante cinq mu nekk alwahaabu yàlla benn rek muhammad ñaar la ko jox ci baatin bi allahu muhammadu aadama benn rek bi la ko jox fii la muhammadu magi aadama ndax dee nekkul fii bii muhammad bi nga xam ne ci lawil mahfuuz du dee mu ndax booba dee amul bi aadama demee idrisa ñëw nuuhu ñëw alayhi salaatu wasalaam yàlla bon ko ibada bi mu topp ko ba jamonoom passé Ibrahima ñëw mu woon ko ibada bi mu topp ko ba Moussa ñëw muy dem bégg ci Daawuda bégg ci Suleymaan bi mu gëj ci Isa nag fa la yàlla buggee feeñal nag li nga xam ne mu ngi ci weeri koor lan la def dafa ne Isa waxal li nga xam ne wax naa la ko mu ne yaa bani Israa'iila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan ma bayna yadayya min at-tawrati wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismuhu ahmadu ah banu Israa'iil yàlla yónni na ma ci yéen yónnentu yàlla laa duma leneen ma déggal li nga xam ne jiitu na ma ci Moussa ak li nekkoon ci kanamu Moussa ma béggale li nga xam ne ñëw sama ginnaaw ku ko amul amuloo dara kii ñëw sama ginnaaw nag moo tudd Ahmad jamono di dem bi am cinq cent soixante dix ans Ahmad dal li judd moom na ko jox li mu koy jox yàlla lu ko neex mu def ko dafa xaar mu am quarante mu jox ko li mu ko jox bi mu koy jox it weer yi fukk ak ñaar la benn weer la tànn mooy weeri koor fi shahri ramadan jibril dem ne ko iqra na nga tari doon na nga jàng de mahamad ummiyun ummiyu boo ko waxee ci arab iqra boo koy firi da ngay ne taril doon jàngal ndax mënul jàng récite di jamais lii fii la safar ramadan indi ngeen doon alquran kii mooy ndema bu jëkk ci ñoom weeri koor koor bi ibada la ñun rek moomuñu ko am na ñu daan la mais min qablina li nga xam ne kay am nañu ko bokkuñu nag kenn mooy dam bi nga xam ne yàlla ko laaf min hafuus muy dox ci yonent yi ba ñëw ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yonentu lislaam kii mooy ndam boo xam ne am nañu ko ci weeru koor mooy ndam bu njëkk léegi nag bi nga xam ne yàlla yónnee na Muhammad wax nañu ko plusieurs fois fi mu jaar yëpp xam ngeen ko xeex nañu ko amuñu ndam complot nañu ko amuñu ndam ñi ko daan dimbal yàlla génne ci ñaari ñi ko doon dimbal muy baayam ak jabaram mu dem Taïf ñu dàq ko mu dellu si amul fu muy añ fu muy reer yàlla jox ko liggéey loolu muy iñaa riñaan mu dem ba ñëw mais am na lu mu ko waxoon nag dafa ne wala soo ka yuutika rabbuka fa tardee affaire bi na gudd dina naqari mais portal bul fàtte bés dana ñëw sa borom dina la jox te da nga bëgg bés boobu ñu xam ne ndox ma la bi mu eggee Medine nag waa Maka dégg na rëcc na mënuñ ci moom dara yàlla na ko nag li ma waxoon dégg naa ko bi nga gën ci dëkk bi da nga ma ne allahumma innaka taalamu annahum axrajuni min ahabil biladi ilayya fa askin lii ahabal biladi ilayka sama borom xam nga ne génn nañ ma ci dëkk boo xam ne moom laa gën a bëgg dëkk yëpp na nga ma dëkkal foo xam ne moom nga tànnal tey nag ñëw nga toog foofu ñu la doon xeex comme nee naa de nga am te dam bi feeñagul fi mu koy jaaralee ci sabab la ko jaaral Muhammad bi mu toogee dégg na Abu Sufyaan jënd marchandise bu mu jógee Saam di ko yóbbu Makka mu ne saxaaba yi ñu dem jàpp marchandise boobu mu ne ko récompense ci li nga xam ne nangu nañu ko sunu alal yàlla du loolu la bëggoon prétexte def maa makka dégg loolu mer jóg na di ñii ñëw ñoom it pour défendre marchandise bi yàlla muccal marchandise bi ñaari mbooloo mi tase ci badar mu nekk xeex yàlla no maa jaalahu llahu illa bushra wa li tatma inna bi qulubukum wa ma nasru illa min indillahi jibril wàccal mikaayil wàccal asrafil wàccal azrail wàccal bi ñu wàccee buur bi deenam te moo nekkoon keroog bi nga xam yàlla nga koy yónni utbatu mu rabiata rakam ndey ak baay mi nga xam ne moo doon ponkal bi umayyata bun xalaf nadr bun xaaris ñu ko daal xeex di def yëpp ci benn yoor yoor trois cent personnes ak treize à peu près réunion ñu malaaka yi ñëw ànd ci li ko yàlla waxoon première partie bi wala soo fa yi nga xam ne boo fa tardé bés bi ñëw na bi ñu indee bopp abu jahlin teg ko ci suur su ko mu ngi doon baax ne na ko toroxal mu xool ko mu ne kaana haada firawna hadihi l Firawna ni mu bonoon ci asam Moussa kii noonu la bonee kooku yàlla ko jox maam bi ci weeri koor mu jox ko leneen ci baati mu ëpp loolu mooy lan bi ñu suulee gaañ ba pare mu ñëw taxaw mu commencé di leen waxtaanal hal bajatum maa waadakum rabbukum haqqan umar na ko kayfa tuxaatibu jaahilan laa arbaha lahaa na ngay waxee ñi nga xam ne mu bëgg a dee dee nañ ba pare mu ne maa antum bi asmaali maa aqulu minhum walakinnahum laa yastati'uuna an yujiibuuni li may wax dégg ngeen ko ñoom dégg nañu ko ñu ma tontu kii mooy ndamu weeru koor d'abord mu jële ko ci aadama ba ñu ci makka bi ñu ko ferloo mu jox ndam bu njëkk bi bu ko wala sopp yuti karam bëgg fa tardé bés bu kontaan na ñu ko doon contre yëpp kilifa yi yàlla xal na leen su la dem mu taxaw seen kaw ki mooy première partie bi. yooyu yëpp nekk ndam yoo xam ne lislaam euh, ndax mooy rasulul islam. ci biir weeru koor. waaw muy euh, ni alquran tàmbalee wàcc ci yoon ci iqra ak victoire bi nga xam ne l'islam am na ko ci xare Badr ndax mën nañuy limaat yeneen ndam yoo xam ne bokkul ak yooyu ci biir histoire la yëpp weeru koor la kii mooy première partie bi bi waa Makka delloo nag léegi gis defet bi ñu dajale seen alal mais il faut que nous allons venger nos morts kilifa yi nga xam ne dee nañu bisu Badar il faut ñu dem fayal leen ñu préparé xëy xaw xare Uhud yàlla nag am na secret bu mu génnee foofu dañuy dégg ne malaaka yi ñoo wàcc dimbal nit ñi jullit yi commencé nag bésu Uhud bi ñëwee mu ne ko xuloo nga xam ne nañ toog ci dëkk bi ñu ñëw dal suñu kaw ñu xeex ak ñoom am na ñu génn intérieurement ñu ngi naan eh comme malaaka ñoo ñu dimbal jaratul sonn yàlla nag mu ngi leen di xool foofu bi ñu génnee bi ci biti nag yàllaa ngi bëggoon Mahamed lamiñ compté wul gëm moo compté bésu Badar mu n'était pas nombreux mais y'avait la foi te yàlla opportunisme xeex bi ñu commencé jullit yi commencé di rey jàmbaar yi di jey jàmbaar yi waa Maka commencé daw gaa ñu commencé jàpp ne dañuy jàpp bitin bi jàpp leen xanaa xanaa ayma bi ñi Mahammed taxawaloon ne na ngeen ñu garder ñu bàyyi fukk rek moo toog quarante yi dem Xaalid Mbalid jaar ci ginnaaw ak Usmaan bu Umayya xeex bi yàqu ñu dóor Mahammed ba mu daal ba ba dam yàlla ak ñu woon foofu Mahammed bi nga xam ne malaaka yi ànd nag mu bésu Badar bésu ngëm ngeen am dam nokku fi tey nit ki moo fi nekk te nee naa lépp loo xam ne dina dal nii dina ko dal foofu nag ñi bu ëllëgee bu leen amate bu leen daw wama amadu illa rasulun qad xalat min qablihi rusul xam nga moo tax yàlla toujours bu leer lu neex ñëwee rek il faut mu indi ndam seet mu indi tiis boo xam dafay seet Uhud nag moo sëgg affaire bi bi loolu amee nag commencé malaak eh, naafiq yi commencé ana ana jibril ana mikaayil abubakar mais jibril ak mikaayil nekkuñu fi nit ñoo fi nekk yàlla moo leen nag dama leen doon seet rek waa maka loolu doy lu ñu ne dañuy def bi gën a garaaw loolu mooy xasatul ahzaab dajale giir yëpp ñëw taxaw Abu Sufyaan nag la gaañ moo remplacé goro bi goro bi moo dee Utbata bun Rabiata moom mu ko remplacé waa ma ko topp ko ba nga xamee ne ñoo ñu fu nekk jàpp leen min fawqi naas wa min yoo xam seen fi ne fi soo fuuti yàllaa ngi leen di bugg a woon ne tey man maa compté xeex sax amul bés boobu lu dul tuuti ngelaw la jël sànni ko gaañi ak seddaay dàq leen Xaalid Malick bi mu daree taxaw mun Abu Sufyaan mun na mun na Muhammadun ma kadaba lu tax lool mu ne kii bésu badar ak li mu ñu def biyoon yoon ñu préparé dañu ñëw yeewu ko dara dax ñu te lu dul ngelaw ak seddaay Muhammadu bun Kasab Abu Sufyaan daal di tiit Xaalid il est fier nga xam ne la dëgg la bi ñu delloo nag léegi yahudi yi nga xam ne ñoo àndoon ak Muhammad ñu trahir bàyyi pacte bi Muhammad fekk leen fi ñu nekk ñu jugé leen décapité leen yàlla na wa radallahu alladina kafaru bi xaydihim lam yanaalu xayran kooku yéefire ko moom waanzal alladina zaharu min mi min siyasihim yahudi yi ñoo ko moom keroog la Muhammad wax al ana naxzuhum wala yaxzunana gannaaw tey yahud ak éféer dootuñu attaqué ñun ñoo leen di attaqué tànk maa ngi ci àddina foofu nag secret yahud keroog la jeex waaye sahaaba yi àndoon ak bis boobu bu jàppee dañuy jàll dox bi naan bu tëddee dañu jël suuf ñu jël ko loolu amatul tey loolu bii daal la Xaalid bi nga xam ne moo doon jàmbaar bi mu tuubee Muhammad Moussa di watu mu jël karaw bi denc ko buy xeex mu def ci ci mbaxanaam boobu ngëm mu amoon démb tey amatul yow yaa ngi def leen neex fii la joge keroog bi leen yàlla waxee wax dama fi ruba ba léegi boo gisee ñu amati li ñu am ci julli ci ñoo bàyyi ñu def léegi nag Muhammad dellu na Medine yàlla bon ko ne da nga dugg ci kaaba gi de ndam ba bar bi dayul de mu jóg ànd ak saxaaba pour umra gaañu bañ naka la ñu bañee ñu ne doo dugg ñu def pour parler ba bind sulhu boo xam ne seen diggante dix ans de trêve gaa ñi ko yahud dem xaybar Muhammad fekk leen toroxal boobu waa Maka trahir mu ñëw nag dugg bés bu mag boobu bal la may beeri koor fatu Maka aussi beeri koor kon nag wàcc alxuraan may nasrul awalu yowmu badrin may weeru koor kër Muhammad duggee kaaba gi daal di ubbeeku xërëm yi dañ Bilal yëg ci kaw programme l'indépendance de l'islam te muy ku ñuul kuk mais la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu Muhammad muy dugg Makka sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wa'dahu sama borom rek moo man li ma waxoon ci Makka ne wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda am naa li ma ci gis Makka am naa gis xamsatul ahzab tey gis naa yëpp jaa al haqq wa zahaqa al batil ñu génn hubal seen xërëm bu mag bi sànni ko ci biti seetal néegu yàlla bi yaa ngi yëg ci kaw mu ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abul as benn notable mu ne tekk mu ne hada amrun jalalun abdu bani jumahin yasiu ala illati abi talhata yàlla am na ki nga xam ne barki dem dañ ko daan ci mbedd mu ne ahadun ahadun di ci kaw kuupal bi te ñu ngi taxaw te ki mu daan dimbal mu ngi toog jàpp ñu da koy ci weeru koor la am ñett weeru koor nag bu xasee ba ñëw buñ ci duggee nañ ci gudd gat yéene bu rafet ndax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ne innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa nit ku nekk le dugg na nga ko dugg ak bu rafet mu ne innakum tataharisuuna alal imaarati wa satakuunu nadaamatan yawmal qiyaamati xëccoo bi ci àddina bi maay jiitu maay jiitu dangeen ko def ci àddina rëccu lay nekk bésu àllaaxira bu weeru koor ñëwee war nañu xalaat loolu Muhammad dafa ne iyyakum wal hasada fa inna hasada ta'kulu hasana ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul hatab iñaan ak fiir ak ngaay woon ngeen ko moytu bu ngeen ko moytoo da ngeen nekk ci lifin barke boobu ci weeru koor la nekk li ci des li nga xam ne mooy sawm bi tee sa bopp am na ñoo xam ne bu ñu ko defee nañ ci góorgóor boole ci li nga xam ne mooy li yàlla bëgg mooy lan sa làmmiñ sa bopp sa xel ak loo xam ne yaa ngi koy toppee yàlla na nga ko jéem a seetal nga jëm ko aar boo defee loolu nga am zahir bi nga am baatin bi ñun julli si nga xam ne nag léegi dañu gëm yàlla gëm alxuraan bi xam weeru koor bi doole gi mu ci am bi mu ko jëlee ci aadama léegi ni ma ko résumé béegg ci nuh alayhi salaatu wassalaam bi jógee foofu ñëw ci ibrahima xalilullahi mu jóg moussa kalimullahi mu ñëw ci daawuda dem ci doomam ba egg ci isa lii yëpp mu ko dajale dugal ko ci weeri koor bi weeri koor bu ñëwee fii leylatul qadri xayru min alfi shahrin ñu yàlla mi nga xam ne dara teewu ko fu ñu toll ci àddina rek bu ñëwee nga xam ne suñu victoire la am nañ ci ñetti victoire ci zahir victoire bi ñu ci ci baati bi jeex mukk yàlla mañ ci li nga xam ne bëgg nañ ko euh, jërëjëf euh, mbokk yi ñu fàttali leen rek ñu ngi ànd ak euh, Serigne Tahirou ci waxtaan wi nga xam ni moo di yóbbalu koor mu indi ñu nag tomb waxtaan wu am solo mooy ni ki la weeru koor nekkee weeru victoire ci histoire de l'islam tuddal nañ ci ay tomb iqra boobu nga xam ne moom la yàlla njëkk wàccee ci alxuraan bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru orientation bi nga xam ne projet de société bi nga xam ne yonente bi indi na ko foofu la tàmbale ba ca topp mooy xare badar xare badar itam ci weeru koor la woon jullit ñi am ci victoire boo xam ne ñu koy dem ba léegi jeexagul naka noonu itam lii euh, li fatu Màkka ci weeru koor la amoon kon weeru koor ci tënk li ko professeur leerale weeru victoire la waaye professeur bu ñu seetee loolu ci doxaliinu jullit ñi ak nit ñuy jëflanteek weeru koor ci jamono ji ñu nekk dafa mel ne weeru koor pour ñoom dafa war a ànd ak tayal wala sàggane liggéey walla sax pasar pasar gën a yàq alal loolu tey nan lañu war a mën a def ba weeru koor dellu ci place boobu nga xam ne amoon na ko démb te nga leeral ko. am na benn baat boo xam ne Cheikh wax na ko comme c'est un intellectuel avant d'être mystique dafa dëgg arab mu ne himmatul mumina qaahilatun himmatul mumina xaalibatun foi bi naka ci doomu aadama dara mon ko not loo dugg boo ko duggee bismillahi rahmaani rahim niveau yi ñuy fiyee bisimilah rahmaani sama doom dafa bari ndax texte boo gis ci arab bu diine ñeenti prix am ñeenti penc la am kullu nassin diiniyin lahul mawaqiful arbaatu al mawqiful fihi ibaratu nassi al mawqifu saani isharatu nassi al mawqifu salisu dilalatu nassi الموقف الرابع اقتداء النص chaque texte théologique a quatre niveaux de signification le niveau lexical le niveau sémantique le niveau symbolique et le niveau contextuel boo duggee ci weeri koor tan bi bi zalika ibtigaa mardatillahi ci iyyaka na'budu doo tayal mukk ndax lekk beeg naan bi da koy fàtte am nga loo xam ne dina la jox himme boo xam ne da tax nga fàttali ko ba nga naan ndax yaa nga na lii kat bu ma ko defee lii la ñu ma yóolee ëllëg lu ci am benn dara teelee gi ñëw rek mu jëli iman sànni ko indi leneen teg suñu kanam kon nag képp nga xam ne jullit la na nga xam ne yooyu ko ñëwul pour tayal loo xam ne dafa lay setal dafa lay leeral surtout bu ci balee salaatu ala nabi bi nga xam ne dara tàngu ci alxuraan baatu yàlla la boo ci defee lu jaaduwul nga dugg safara Muhammad wax na ko ci hadis yu bari salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam quel que soit anam bi yërmande la nga baril ko bu baax ci weeri koor bi mais am na lu ëpp loolu yëpp solo ñun jullit yi nga xam ne ñu ànd ñi gëm yàlla bu ñu ànd ak ñi xam ne gëmuñu yàlla seen sariya sunu sariya bu ñu ko méngalee ba nga xam ne dañuy fàtte ñu ngi naan ne politique baaxul politique bonul nit moo koy mën a bonal tubaab yi ñu jëmul yàlla bu ñu àndee di xeex dafay continuer ñun bu ñu gëmee ne yàlla lu mu jox rek mooy am wa maa tashaa'uuna illaa an yashaa allahu foo tollu ci àddina bu ŋaayoo ñëwee ci àddina mbaa xëccoo ñëw ci àddina ji dem di dem ji dem misaal lay joxe ci politique ba nga xam ne yàlla jeexal na ko lu am ñu nangu ne kii ate yàlla la dootoo seet ki nga xam ne moo ko am da ngay seet yàlla mi nga xam ne moo ko amal booy ñaan doo xool nit ki da ngay xool ati yàlla bi nga teral ko kooku ci lu nekk la boo gisee borom diine yi kenn mënul si ñoom dara foofu la ñuy jàpp doole ku ci nekk bu ne allahumma inni nawaytu an ataabada laka bi tilawati hada al birdi iyyaka na'budu moo ñëw iyyaka na'budu bu xasee ba ñëw nag nanga nga fexe ba lépp loo xam ne dugg nga ko ci bu ci duggal ngaayoo bu ci duggal bañante bu duggal duggante fiirante concurrence fu mu jaar mi nga xam ne yàlla ngi lay xool malaaka yi ñu xam ne kii kat sonn na waaye jox na joor bi ak xam waaye yaa ngi or lekkuloo naanuloo waaye lépp loo xam ne ku deful yaa ngi koy def yaa ngi tëb fi yaa ngi dal fi yaa ngi bañante kooku baaxul amee lenn lu am solo lu yàlla wax sama doom boo ko defee jamono bu nekk baax na waaye ci weeru koor la ëpp doole mooy boo génnee dara ngir yàlla xam nga sunu borom dafa ne in tubdu sadaqaati fa nimma hiya wa in tuxfuha utuutu wal fuqaraa foofu xayrun lakum bu ngeen di génne ay sarax sarax na boo ko déggee ci arab comme la ñuy wax mustarak la terme polysémique moo nafiri aska moo nafiri sarax bi ngay joxe moo nafire bienfaisance boo xam ne yaa ko yéene rek ngir yàlla nga jox ne nit anam bu mata doon yàlla mën ko feeñalee fa ni imma hiya ni imma hiya expression la ci arab booy wax ci arab ah bonul de lii de bonul def nga li bonul de mu ne wa in tuxfu xanaa bu wax wa tuutu al fuqara ngeen jox ko ñu koy yolla dégg mu jaar fu mën a jaar foofu ba xayrun lakum yàlla bu indee superlatif absolu afalu tafdil ne lii moo gën kon nag lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci weeri koor bi ngir yàlla soxla ñu extrapoler ko ci rajo yi diwa ngi def nii diwa ngi def lii je ne critique personne je ne pas de leçon mais li yàlla wax may bu ñu bëggee may so mu baax mu jaar fi mu war a jaar képp koo xam ne yaa ngi def na nga def loo xam ne war na jaar ci yoon bi boo jaaree ci yoon bi rek incha allahu ndam rek nga cee am jërëjëf professeur du euh, Doucouré sànq junj nga lu am solo ci biir waxtaan wi mooy weeru mooy ne weeru koor weeru histoire la ga weeru koor itam jullit bi daf cee war a wax iyaaka na'budu rawatina waaw mais muy mel ne jullit ñi léegi waxatuñu iyaaka na'budu waaye almaala na'budu ñu mel ne malheureusement moo tax nag li nga xam ne dal nañu dal ñu woon démb yàlla moo ko waxoon inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim déedéet man yàlla lu mu soppi dara lu ñu soppe ngeen ko saxaaba yi gañe ba suba tax bari ñu woon bi waa ji taxawee di ndékki mu dégg li Muhammad wax mu ngi dëkk ay tàndarmam Muhammad taxaw xam ne mbooloo mi bariwul waaye malaaka yi wàcc nañu mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadihi laa yuqaatiluhum al yawma rajulun fa yuqtala sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbini illa adkhalahu llahu aljannata xam nga waat ñaar la ci arab nga waat nga indi ki ngay waatee nga soog a indi melom bu la neexee nga dindi ki nga waatee nga indi melo bi rek mu ëpp doole nga ne foofu wallahi lazi c'est bon le pronominatif est un déterminant mais si il est éludé si le déterminant est éludé le déterminant vient ça devient une forme emphatique mu ne wallazi wala mu ne wallahi lazi keroog loolu la def Muhammad la forme emphatique waxul yàlla wallaahu de lazi rek la waatee loolu am rek ñu ne caaxaan jeex na ñu déglu lu muy wax mu ne wallazi nafsu muhammadin bi yadihi waat naa ki buur bi nga xam ne sama bakkan moo ko yore tey comme ngëm moo leen indi képp koo xam ne tey bi ngay dee daw la ñu doon sa ginnaaw ci sa kanam la nga door ngir yàlla àjjana ngay fanaan boobu moo nekkatul fii Abubakar Siddiq nee na am naa loo xam ne jaaxal na ma lool Xaalid ibn Walid nga xam ne moo xeex Muhammad Medine xoj ko bésu Uhud façon bu nekk moo taxaw di xeex Mahamad xajatul widaay bi nga xam ne Mahamad wootu na maa ngi ko doon xool mu yëgu ko sax mu jël ay skawal si bopp bi mu denc ko mu dem ba foo sori mu jàpp di ko fóon di rox Xaalid ak ni mu meloon ak ni mu amoon fierté bopp mu jël karawam di ko fóon Martin Lix benn anglais bu def téere bu rafet ci lislaam nee na lii gën a tax ma dugg lislaam ngëm boobu moo amatul foofu bu ngëm amoon comme mu doon amee alal du yàq kenn déedéet alal du yàq kenn boo ko jiitalee nga bàyyi yàlla ci ginnaaw nit ñi ree la waaye loo dugg nga jël daara bi nga bañ ko fàtte kii dina ma rappelé ci conclusion bi sama rakk Sidi Lamine Niass keroog bi nga xam ne wuyu na boromam ma dem kër ga di ko jàll yaa ngi toog ak mbokk yi xasida bi ma ko wax dama ne inni faqatu axan xamiman dan نال الأولى في صحة القرآن بلباقة وشجاعة وحصافة فصل الخطاب أتاه بالبرهان يا سيد طب نفسا فموتك بعده في جنة الفردوس أمر ثاني خلت آثارا سليما أسها برا وبحرا بغير تواني قولوا معي يا إخوتي في صبرنا إن البقاء لربنا المنان li soobee Sidy Lamine Niass ak ku mel ni Sidy Lamine Niass man mi nga xam ne may sa mag maa ngi ci politique bonul déedéet waaye boo ci duggee nga xam ne yow militants yi duggaluñu la sa xam-xam boo tax nga dugg ci bul fàtte xam-xam bi daara bi bu demee ba yàlla may ko tey mu génn ci àddina kenn réewu ko am na nattu waaye kenn réewu ko fàttewul daara bi li papam defar ci kaw basang la daan toog ba am toog ci kaw der ay néeg yoo xam ne yu doy waar la bu fak toppoon na building yi nag ba fàtte loolu suuxal loolu lu ban dal ko man bi may jógee 62 Malicounda sama kër papa amul sax néegu ñax amul sax néegu seng ay ñax fa nekkoon ñëw toog Félix war ñaan jabarkat la déggul dara jabarkat boobu ñu fekk Léopold Sédar Senghor jël ko yëkkati ko ci kaw nekk ci xam-xamam doy na addina jéem ba nga xam ne dem naa ba egg fu mu war a egg kat yeeg ñëpp topp bu fekkee ne keroog bi ma bàyyee ak ni ma bettee dama bàyyi woon dara bi dama fi nekk tey demoon naa ba sori laaj jànnu la de waaye bi ma gisee li ma xamatul ma dellu ma ne Cheikh Tidiane yaa waxoon fal atil xaq bil xaqi alkandil azami fatatikan min ka ilayka leer bi xam dafay jógee ci yàlla dellu ci yàlla min ka ilayka de toi à toi from you to you sa doom jaaxle na ma ne Cheikh amahullah yaa ne allahumma inni asaluka bi qudratika alqahirati allati la yataasa fi sabas samaay sa man man gi nga xam ne boo ko indee kenn du la jàngal te kenn mun fi dara sa doom réew ko nañu ko j'ai été nommé par un décret président providentiel après un décret présidentiel il y a 52 ans aujourd'hui maa ngi fii tous ceux qui avaient complété sont en train de manger le pissenlit par la racine pourquoi parce que mboo alxuraan la tax siidi ak képp koo xam ne mu ngi génération bi ñuy déglu loolu dugg ci àddina bonul karbaat bi du yàq kenn kaala bi du yàq kenn du defar kenn yéene moo yore am na ku sol karbaat diggantam nga yàlla dara ne ko ci lu baax am na ku jël kaara ku romb mu iñaan la ku romb mu fiir la du ko jëriñ dara imaamu Shafii nee na fa xasiisu sawbika laa yaziduka rifatan inda al ilahi wa anta abdul mujrimu wa jamilu sawbika laa yaduruka baada ma taxsha al ilaha wa tattaqi ma yuhramu yére yi ngay sol def sax bu ko xam ku bañ adduna du la dimbal dara ba fekkee c'est pas sincère yére yu rafet yi ngay sol te kaw defuloo du taxaddu bi nii matériel du la wàññi dara kon nag maalu bi am na ñu mu yàq amuñu mu yàqul métier boo dugg ci àddina ñu baax nga ci ñu bon nga ci am na loo xam ne xew na yàlla ma sutural na ma ça fait cinquante deux ans musuma dégg kenn critiqué ma ci ab journal fii ñu ngi critiqué président yi ak ñu baax ñi benn yoon rek laa gis benn waaye bu ma critiqué te fi mu jaar alhamdulilah rabbil alamin war na ko keroog bu ma demee di yàlla si lamin yaa ngi toog ci magam bi nga xam ne moo gaañu di Ibrahima bi may dem jaali moo la moo la yóbbu yow yow laa yónni ci moom bi may dem xaw ma sax keneen dina ñëw bi ma ñëwee la ñu ne Abdoulaye Wade xaw ma ko woon bi fa ñëwee de solo jaaxle bay jeex la soog a ñëw ak mbooloo on s'est même pas salué deux jours après benn journaliste Abdallah Kane bu nekk Thiès ñu naan Malick Seck mu daal di génne ci journal bi ñaari photo Cheikh Taïb ko dem mu duma ci suuf mu jël benn tubaab bi ko ci kaw ne moo yore Blaise Diagne di ko ñaanal ñaan bi nangu ko dégg naa tubaab bi dàq nañu ko alaaj Malick teg teg na ma loo xam ne yàlla nangu ko man maa ngi toog tubaab bi mu yëkkat ci kaw ne mooy dimbal Macky Sall yàlla daaneel na ko kon nag métier ba nul ñu bon ñoo ci dugg jëfandikoo moo génn journalisme du wàññi kenn dara attaqué naa Dégola en France te kooku bëgg la pour la libération mais bi nga xam ne defar na indépendance su Algérie journaliste yi commencé ñëw nag ah sa gars ñi kat mere nañu la da nga nu Algérie française yaa ngi leen di mere mu wax lu am ci France yi sol mu ne Alain Préfet bi nga xam ne tubaab yi yónni nañu ko ci moom xale yi yónni nañu ko ci moom on peut à la fois lu am solo la on peut pas être à la fois l'homme de grande tempête c'est lui de basse combinaison lorsque l'essentiel est en cause même contre-cœur Il faut faire preuve du pragmatisme. Je n'aime pas les communistes, parce qu'ils sont Je n'aime pas les socialistes, parce qu'ils pas socialistes. Je n'aime pas mon entourage, j'aime trop d'argent. Cela m'est complètement égal que vos journalistes soient moi. Cela m'ennuierait qu'ils ne le soient pas. Le jour où le Figaro et le Monde me soutiendraient, je considère que c'est une catastrophe La presse est basse, l'Algérie sera indépendante. Puis la saga journalisme. Nous sommes de Newport, puis la Corée. Nous sommes ay wala kanakum al malik si lu ñu yàqal ñu nga xam ne ñu ngi liggéey déontologiquement ak ñi nga xam ne ñu ngi def ci Sénégal ñu baax kon nag li nga xam ne moo am solo mooy lan nañu ñaan yàlla ci weeri koor bi zahir bi ci nekk baatin bi ci nekk li fi nekk yàlla ñu jig keroog dama toog baa soo ma jógee ci soo ma ñëw di ma jaa di ma nuyu si sama benn goro fa nekk di sama doom ëllu faalaan sama doom ami ko li soxnaam ànd ak i may ñëw ci biir waxtaan bi nee naa leen Sénégal tey comme élection yi passé nañu nañu góorgóor ki nga xam ne yàlla indi na ko fi yàlla na ko mandat bi yàlla ñu ji yàlla ñu ji keneen am na ñu ma ne ma li tax ngay tudd Macky Sall ma mosul la tudd ma tudd ma Macky Sall fonction bi laa tudd est-ce que bi nga xam ne ñu ngi def campagne tudd naa ko tudd ma ko ba comme yàlla def nag mooy présidente yi yàlla nangu ne atte yàlla bi Sénégal laay ñaanal à travers li échange le fait sans complexe bu fekkee man bokk naa ci ay kéemandeer ñun ñu xam nañu ko bu fekkee bokkuma ci nit ñi xam nañu ko waaye du ma nekk loo xam ne it bu yàlla defee may déedéet comme yàlla indi na lii moo fi nekk tey tant que mandat bi jeexul yàlla na jig Sénégal yal na ko Sénégal jig lépp loo xam ne musiba la yal na ci yàlla musal pendant la campagne électorale tudduma kenn kay na dinaa ko def tey te képp koo xam ne ñëw na ci man bu may ñaanal Sénégal dinaa ñaan li ci institution bi. waaw professeur Xabla sax foofu la ñuy euh, àggee ci cappaandaw bi. Mhm. waxtu bi dab nañu. Mhm. waaye lu mu xet euh, euh, ñaan feeñ ci sa waxtaan. adduwaaw silaahul mumin la Muhammad wax sallallahu alayhi wa sallam jullit li ngay jëlee sa xarekat di xeex mais ñaan yàlla dafa ne wa idaa saalaka ibaadi anni fa inni qaribun lu am solo ngi fi ujibu daawata daa i idaa daani mu ne Muhammad sama jàmm bu ñu la laajee fan laa nekk ku jege la soriwuma kenn ujibu da'wata da'i iza da'ani da'a dafa am ñaari firi ci woote ak ñaan terme polysémique la c'est un problème polysémique da allah ñaan na ko da allah woo nañ yàlla boo leen jaxasee nag nga jël benn bi ci place benn bootul du am dara ujibu da'wata da'i ki nga xam ne ñu ngi woote dinaa li ma woote iza saali bu fekkee ne laaj na ñaan na ma voilà ñaan bi ñu boole nag yàlla moom nga xam mooy qaribu mu ko allahumma anta alladi xalaqta aadama baada muhammadin fi zahiri anta alladi xalaqta muhammadan baada aadama fi zahiri déglu baat bi de déglu nga noté ko anta alladi xalaqta muhammadan baada aadama fi zahiri anta alladi xalaqta muhammadan qabla aadama fi lbatini dégg nga li wax ni nasaluka bi tilka alqudrati التي خلقت بها آدم أولا وآخرا وخلقت بها محمدا أولا وآخرا نسألك الله بالقرآن العظيم ونسألك بآيات القرآن العظيم أن تمتي أخي سدلا من يسفي حياته الرضوانية لأنه كان سببا للرجوع إلى الحياة الصاخبة وأسألك اللهم بسر المكين في طريقة الحمدية التجانية حيث قال أبو العباس أحمد التجان رضي الله تعالى عنه إني أتبصل إليك ابتغاء مرضاتك بسر سرك وبسر ذلك السر في ذلك السر أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم أنت الذي قلت لمحمد ولا سوف يعطيك ربك فترضى إنا أعطيناك الكوثر إنا كفيناك المستهزئين ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فلنولينك قبلة ترضاها wallahu yaasimuka min annaasi laqad radiya allahu yubayinuka tahta shajarati inna fatahna laka fathan mubinan wa yansuraka allahu nasran azizan anta alladi atayta muhammadan hadihi almanazil arrabbaniyata nasaluka bibarakati tilka almanazili an tumati'ana fi jumratina alsenegaliyati wa an tahula baynana wa bayna almunafiqina walmudhabdhabina والعاطشين والمنافقين وتجعلنا تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله ظاهرا وباطنا يا ذا القوة الكاملة والقدرة الشاملة يا حي يا قيوم يا بديء السماوات والأرض يا جلال والإكرام تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين jërëjëf mbokk yi ci ànd beeg seen émission bii di minbar noonu lañ ko fas yéene jàppaloo rek muy nekk ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi di mbindum koor waaye xaajub ñaareel bi nekk di yóbbalu koor yóbbalu koor bu tey bi nag ñu dalaloon ci professeur du Doucouré ci waxtaan wu am solo woowu nga xam ne mu ngi ko doon def rek weeru koor ni mu nekkee weeru victoire weer boo xam ne du weeru tayal du weeru yaafus waaye weeru victoire la kon loolu war na nekk mbind ci euh, képp koo xam ne tey yaa ngi woor weer wi bañ a tayal bañ yaafus bañ yaakaar ne mënatuloo dara ci liggéey euh, weeru koor euh, weeru victoire la kon loolu moom la Serigne Tahirou Doucouré indi woon tey ci waxtaan wu am solo woowu kon xam naa rek li ñuy tëjee émission bi mooy lu am solo loo xam ne boo demee bay dog moom nga war a wax mu nekk ñaan bu am solo boo xam ne boo ko ñaanee yàlla mën na la ca dugalee àjjana waaye itam mën na la ci may wërsëg woo xam ne dootul daggati mukk ba mukk ci ci àdduna wërsëg woowu itam yàlla barkeel ko kon ñaan bu am solo la boo xam ne sunna sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa moo ñu digal bu ñu demee bay dog ñu ñaan ko période boobu ngay dogee itam ba téye tàndarma bi di war a dog jamono la joo xam ne loo ca ñaan yàlla nangu ko bu nanguwulee daal xamal na ci yaw la waaye du ci yàlla muy lu am solo li ngay wax nag ci ñaan bi mooy allahumma innaka mooy dangay wax ne allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir lii maa qaddamtu wa maa axartu loolu boo ko mënulee wax ci arab itam bul jaaxle ndax boo ko waxee ci wolof yàlla dégg na ko mooy lan mooy yow yàlla yaa tax may woor yow itam laa gëm ci sa wërsëg laay dogee yàlla nag ma jéggal bakkaar yi nga xam ne njëkk naa ko def ak bakkaar yi nga xam ne mujjee naa ko def lii la nit ki di ñaan bu demee bay dog muy ñaan wu am solo woo xam ne am na euh, njariñu àdduna waaye am na njariñum àllaaxira kon mbokk yi ñu jox leen beneen dox daje ci seen émission bii di minbar incha allah